والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bi nu santee borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisu tedd bii baloon dugg ci waxtaan ñu fàttali rekk liñ war a sàmmoonteel ci barab bii mooy ñu fexe bay sàmm warma ji eh, ku fi toogit bañ fee waxtaan waxtaani àdduna bañ fee tëdd di fi nelaw wala di fi tàllal ay tànk ku ñëwit bala ngaa toog nga julli ñaari rakkaa mbaa lu la soob mën na ko ëpp soo ko xasee julli ba toog nag suñ noddee nodd bu njëkk jarul ngay jóg de julliwaat amul genn genn julli guñ digle foofu ñu gis ñu bari di ko def bari na jàpp na suñ suñ noddee dañu war a julli julli waaye na jàpp na buñ boo xasee julli nga war ba toog suñ noddee amul genn julli gi guñ fa digliwaat gu mat gumta ñàkk waxtaan te tey dañ koy jëmale rek dañuy deswaat ci war may dëkk bii di Tuuba ñu war koo xam te war a sàmmonteeg moom xam ne borom day duñ koy sanc dafa am lu am solo lu tax mu sanc ko muy yett yëf la njëkk mooy jaamu yàlla dëggi dëggi ak jaamoom ba ko ñaareel mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci di ko tagg ak di julli ci moom ak di ko gindil nit ñi di leen teg ci aw yoon di ko ñetteel na mooy dundal sunnaam alayhi salaatu wasalaam ñett yii boo jàngee tarjumaani saadatu muridin jàng tarjumaani matalabul fawzayni da danga gis ne ñett yett yooyu la ci lim wax ne mooy yett yi tax mu sañ ci dëkk bi di Tuuba kon yàlla rekk la ko sañce te nit bu daan sanc bu njëkk da daawut fu neex a bay mbaa suuf su nangu mbaa dabu suufi maam waaye sanc ngir jàmm yàlla dong dong dong soxna benn ci sanc Tuubaa dooga sanc sanc Sëriñ Tuubaa doogaaw ñaar fu mu sanc maa ko nag jàmm yàlla rekk tax ak dundal sunna moo tax bi mu bu ñu ko sancee itam mu jànkonte ko coono yu méttee méttee métti ñam nekkaloo nit jànkonte coono yu méttee méttee ndax boole woon nañ daawuñ lekk daawuñ naan daawuñ nelaw daawuñ noppalu waaye xasida xasidaam gi mu tuddee Matlabul Fawzayni lam bëgg ci dëkk bi lépp mu ñaan ko ci boroomam di ca naan xéewal yoo xam ne ñe doon dund jamono jooju xam ne Sëñ Tuubaa lu mu wax xar-xar doj la danga ci teg sa bët waaye lañuy ñuy dund ak li mu ñaan sore gam sore su doon koy sikk sàkk mën na jaar sikk sàkk maam soo ko ko laaj ne ko Mbàkke lii de xanaa ko gàttu fan du ko fekke sëñ ko gàttu fan du fekkee dara waaw moom ma doon wax lool ca fan yooyu la fi dara bàyyi ko ñu xam ne kon faw ñu sàmmal kon sëriñ bi yéeneen jooji taxaw mu sanc ko te wax nañ ko sancee ci la tàggalikook lépp lu ko doon gàllankoor alhamdulillahi alkarimi dil minan ala ishtigali bi furudin wa sunan shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani may sant sama borom mi nga xam ne mooy waroom mooy borom xéewal yi ci def gi ma def may wax amoo seen soxla lu weesu jëf farata ak jëf sunna yi sant naa ko ci ni ma indee ci dëkk bi nga xam ne ma fa indee ci laa tàggoog lépp lu ma doon gàllankoor ba teemaa def li ma war li ma war sama digg sama borom li ma war sama digg dëgg ndef yi waaye nag fi la ma defee la taxliya fi la ma defee la taxliya maanaam fii la ma sunu doom dindi la ci sama bakkan li ma ci li ma ci tàmmoon lépp waaye ci la ma ci defal li ma tàmmoon lépp wa qaadani ilayhi bittaxalli min baadi ma hadaba bittaxalli waaye wa jarrani fihi ila alulumi wal fawsi ko nag ci xam-xam ci dund ko dundal ko tasaare ko ci la tàmbale na ñaan li mu doon ñaan ci dëkk bi yaa man ala an zawjatin wa an walad xutni wa xut jamia ahli zal balad yow mi nga xam ne yaa kawe kawe nga ba doo am soxna doo am doom jomante nga moom yàlla na ma aar te aaral ma waa dëkk bii di Tuuba waaye ñaan nag suñu boom def dëkk bi mel ni aw turam wajal ilaahi maskani Tuuba aban mithla ismiha bi jaay xayri ma yàlla na nga war a yor sama yor sama yàlla na nga def biir Tuubaa mu mel ne ëpp aw turam Tuubaa lu muy teg texe kon loolu mooy ku fi nekk nay jëf jëfi ko texe jëfi ko texe nag ko ne xam na ko mooy sax ci ndigal ca nañ la ko digale bàyyi tere la lañ digle lañ ca man lépp nga di ko def boobu sa kàttan yam lañ tere nga bàyyi lépp te tënku ca lañ la tàndal loolu mooy koy koy koy doxe ne ko ma ngay dox dox yi nu ko texe mu kon ku fi dëkk na doon koy dox dox yi ko texe ñaan yàlla it mu nekk dëkku njub gannaaw bu ñaanee muy muy dëkku xam-xam bu noppi wajal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi yàlla na nga def sama dëkk bi di Tuubaa mu nekk dëkkub xam nekk dëkkub jëfe tey jëfe juñ teg ci sunna ñaar mu nekk dëkkub njub wañal binaa iya binaa alihi tidaa fi an ni kay de kulli bi atidaa yàlla def sama dëkk bi di Tubaa mu nekk dëkkub njub mooy kon ku fi nekk da nekk ko njub da nga fegal ma fi nag ay képp kuy borom jalgati ñaan suñu boom fegal ko fi lori seytaane ak i gàllankoor ak ñoom àndal ñëpp wal tak fi ni dëhra ada seytaani wa xisbihi albaadina fi l awtaani te kenn ñaan goo xam ne lu mat a bàyyi xel la ku fi dëkku nekkoon ko bàyyi xel ñaan na suñu boom ne ko képp ku fi nekk ci Tuubaa te yow yàlla taxaw ko jub taxaw koo jub man ma ko dàqal mu génn ci biti wal takfi anni kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian is yarid bu fi ne jëmmi rek daal may daal ma ko wëngati mu génn mu génn ca saasa moo tax may wax ne Tuubaa mu ku fi nekk te bëgg gudd fan danga fiy nekk ak njub ku fi nekk te jaar weneen yoon doo fi yàgg donc ku ku ku yabu ku yabu xool seet seetante lii mu wax ba xam ku fi nekk te nekk fi ak njub doo gudd fan lu ma ta bàyyi xel la ndax nag nag ma ko génneel génn gi ñaar ñaar la génn Tuubaa dem dëkk feneen ba génn ko dem dem dem bar sax rek ne ko it yàlla nag ma dàqal ci génneel lépp lu yàq na nga ko génne ci sama loxo génne ko ci sama dëkk bi Tuubaa yàq rek na nga ko fi génneel lu yàq ku yàq wal tasrifan jumlata maa yufsidu an yadi wa waaye soo génnee ko nag mooy indil nag ab defarkat tàbbal ko ci sama loxo tàggal ko tàbbal ci sama biir kër te saxal ko fi nag ci daraje ki nga xam ne mooy alhaadi alwafi aji gindeeje tey aji matal aji kollure mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal tudxilil fi yadi wa baari wax fabbitanhu bil haadil wafi kon ñaan yooyu yëpp na kon luñ war a jëmmal la ñun ñi fi dëkk fexe ba sàmmante ak loolu mu ci ñaan ñu di ko dund lam ñaan mooy mu nekk këru ragal yàlla kon ko fi dëkk dangay nga war ragal yàlla ad'uka an taj'alahu daara tuqa wala ilmi wa diin wa daara lirtiqa ñaan yàlla nga nga def ko mu nekk da ko ragal yàlla da ko xam-xam da ko diine da ko yëg ci darajo kawe wa jannatan li saalikin muridi wa junnatan an haatikin maridi yàlla na nga def Tuubaa mu nekk aljanna ci képp ku sóobu saw yoon yàlla te namm sa jëmm maanaam ku sóobu ci yoon te di murit waaye nag na pàkk buy génne ca bitti kuy xotti war may diine wa man faan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli aadin mujrimi yàlla nekk njariñ ci képp kuy ab jullit tey nit ku jub waaye nekk nag ñu defaa boo xam dafay dafay dafay génn ci bit képp kuy ab mu nekk dëkku sellal wa daara ixlaasin wa sidixin wa wara wa daara sunnatin wa man jam

소리 أشهد أن waaye da ko dëggal da ko sàmm da ko sunna ak mucc ci lépp luy bidaa ngir sàmmante yooyu kon war a fexe ba kon lépp loo xam ne yellul ci dëkk bii rafetu fi dafa war muy ji moom te am na yu ñu seetlu yoo xam ne dafa fiiroo lool ak war dëkk bii bokk na ca loola yar ay dawkat ay kalbu bari na lool ci biir dëkk bi daa mënoo génn guddi doxantu te doo fiiroog ñoom ci yoon yi te am na ci dañuy lore dañuy màtt teg naa sama bët ay xale yu yuy màtt seen waajur sonn lool ci seen mbaj ndax dangar la àndal joo xam ne piqûre bañ la ci piqûre piqûre bu seer la ak la ca la caaju ñu xam ne kon bu fekkoon ne bu du war a lodge it jëm yar ab kël bu fii ci Tuubaa rek dafa dafa dafa yëlu dëkk ji dëkk bi yelloolu loolu te bari na fi bari na fi nag lool sax te kilifa yu baree bari ñu ngi koy mettitlu taluwaal saafara la nga xam ne ko yarub kël bi danga nga ba dem ba ca àll ba su mënta ñàkk waaye biiru dëkk dëkk bu bu sell bu dem ni Tuubaa dafa yar ay ay kël bu ay ay dawkat loolu jékkul rafetul te bari na fi lool nag lool te li ñuy seetlu ñëpp seetlu nañ ko la ko ñaareel mooy misik nga gis ñu koy teg mu xumb lool ci sareet yi ci ñaari punu yi ci oto yi ba ci marché bi marché boo ci doxantu misik bi day xumb lool lool lool lool ba ci xew yi xew yi am ci dëkk bi xew xew yi euh, ngénte yeeg ceede yu ni mel musique ba ak tëgg ma dafay takkanaase lool mel te ku ne xam na euh, Cheikh Mahamadou Muntaqa yàlla fa yàlla yàggal te ko tere yi nga xam tere woon na ko te mu yeesal tere si Abdoul Ahad ya loolu po am po ca la bokk te am po bokk ci li Sëñ Tuubaa gënoon a bañ te tëggi neeg misi gi ci xay ak yi caju dafa bari dafa dafa bari lool ni ngootu dëkk bi am xew di teg ay misik mbaa tëgg fecc ak ak tëgg bongo ak i bool jekkiwul tuuba li dee si xàmmee xewi tuuba xasiida la woon ak alxuraan bernde ak waxtaane sëñ tuuba loolu laa waxoon ci genn xasida kon xewi tuuba lañ ca xam mooy mooy alxuraan mooy xasida mooy waxtaan si ak bernde waaye misik ak tëgg akum po bokk li sëñ Tuubaa gënoon a bañ te ñaanoon na wax ne lii sax xiran tawaabii jamia xata yasir kulluhum mutia su ndoom ñaan naa la nga tàggatal ma sama mbooloo ba ñoom ñëpp ñu doon ñu lay topp te bañ laa roy bañ bañ laa moy ñu lay topp te bañ laa moy sëñ Tuubaa lépp lu ñaan laataa mu koy bind fekk na sunu sunu doon nag ko ba kon képp ku nekkagul ab toppkat jàppal na ngaa bëgg ci mboolam rek kon ko sax xiiran tawaabi jamia na mu tàggate sama mbooloo ñun ñëpp xataa yasiru kulluhum mutia ba ñun ñëpp ñu doon topp kon li fay nekkagoo koy topp jàppal ne kon bokkagoo ci mboolam sëñ Tuubaa lool loolu lañ ci war a mën a déggee am pan bañoon na ko lool. lool lool lool muy feeñ bu baax a baax a baax ci biiri mbindam yaa man asamtani min awdi li dat wa min istata zarika al adat yow sunu boom yaa mu musal ci po ba dootuma ca dellu musu caa jaar waaye waxin la madda ilayallahu xayra madadi bi jaahi wa laysaana andadi su jox na ma ngeen di xéewal ci darja yoon saasam waaye ñoŋal na ma nag ci am ko addadu addadu mooy allahu wa laib mooy fo sala sama xon na ko lastu min dadin wala dadu min nii du fo te fekkewu mu fu ñu fay ñaan su ne ko sama lépp na ko fegal lori lori fo kulli yatihdi wakfiha adad dadi yaa baasitan lii kutiji wa madadi ne ko sumbam faral nga faral nga ma samay ayib faral nga ma yetam samam po faral nga ma ayib akum po ma xawta bil maaxi uyubi wadadi salla alayhi waltu xalli madadi daaxal nga ma ca daraje nu saasam lépp luy ayib ak lépp luy po ñaan ñaan gu niroog jéem a waxoon léegi ca gannaaw li saxin tawa bi jëme jooju dafa waxaat dafa ne yow sunu man màng nga sama mbooloo jëme leen aljanna sama mbooloo màng nga leen jëme leen aljanna waaye ànd ñoog lor ànd ñoog bànneex ànd ñoo kom pox ànd ñoo kom pox kon koy far ak nekk bokkugoo ci biir biir biir biir biir mbooloo moomee lii yesuuxu lil jinaane adadi bila atan wala hawan wala dadi ne ko dàqal na ma jépp lor ak lépp mpo su ma dàqal na ma ko waaye nag mu wammatal na ma lim boobee xëy xëy ay lim moom bari li mu koy tudd xëy mbir di ko borom la waaye xëccal na ma ko ci lu muy ànd ak muy ànd ak mpo adhaba anni kulla durrin wadadi wajaadali bila adan bila adadi waxin ne xéewale suñu borom yommatul na jëm si ci man waaye faral na ma nag am po ba doot del ko ci man lin qaada la rabbil baraaya madadu bi himmaha bi xayri awdin li dadu loolu ay lu lu bare bare bare bare la ko jay kon ñu xam ne kon Tuubaa du ko fowukaay la ca topp mooy wàllu col mi rafle na lool ci rawatina ci jigéen ñi te jekkul jaaduwul rawatina jumaa jeeg li ko wër li wër xorom ji lépp ku fi jaar ku nekk war nga sàmmanteeg laa sam sant ci ci ci ci wàllu aw colin di sol lu jot lu suturaal saw yaram sàmmanteeg lépp loo xam ne lu juyoog lislaam la ci lam digal jigéen ci nam war solo solo mu solo noona ci wàllu kàddu wala wax wax ju ñaaw di ko moytu ci li war xorom ji di ko moytu fépp sax waaye da ca da ca rawati nag ñu xam Tuubaa baral la bopp yàllaa ko barke ba lépp lu fi waay dañ koy ful niñ fi dañ fiy ful lu baax di fi fël di fi fël sa safar ndax barkeelu barke ba lépp loo fi jëf ñu ful ko kon nag ab julli fu mu fu mu mën a nekk war naa fegu war naa sàmm waaye ko dëkk Tuubaa ci raw nag war ngaa farlu ci lu baax ngir saw yiwu bari waaye war ngaa maytu ab safaan ngir eh, ta la la la rëcc ci lu néew néew néew nga di ko tuub nga di ko tuub dëkk la bu neexa ba man a bari aw yiw bu neexa jaamu yàlla waaye nag boo sàgganee nag mën na mën na mën na la jural mën na ca càggante ga wala doxin doxinu rafetul mën na la jural musiba bu ma xam ne doo xam fu mu yem loolu ñu bàyyi ko xel dégg naa ci sëñ Moussa moom sëñ Abdul Xaadir mu wax ne sëñ Abdul Xaadir euh, ci dafa mos a seyaar yi fekk ko njaareem bu seyaaree bay tàggu mu laaj ko fooy woore fekk koor day jege mu ne ko fooy woore mu ne ko Tuubaa laa bëgg a woore lu sa baay baax ba newoon na lu baax baaxee na fa ne waaye Tuubaa gën a sakkane wala sakkane lu Tuubaa gannaaw na kon lu sakk lu faa jëf lu sakkan lay doon lu ñu yokk lay doon lu ñu ful lay doon kon ko fi nekk war naa farlu ci jëf lu baax wala farlu ci moytu ab safaan te yett yooyu ma tudd rek tasaaru dafi lool ni yarum dawkat ak misik ak it col mu rafle ak yeneen ak yeneen te yëpp bokk na yi sëñ bi moytu eh, yim digle woon te wax ko mu leer nañ ñëpp ko ñu ko ci ay kayit ñëpp xam ne lii la sëñ bi bañ ci dëkk bi ba tere yee door a jug nag ñu ko doon tàmbali jéem a góor góorlu waaye bi ndoxee tuuti rek doomu moo baaxoo noonu moo baaxoo gaaw a fàtte Eh, tawax nañ leen tudd gi ñu tudd sax insaan loolu loolu tax gaaw fàtte wa ma summiya al insaanu illa li nasihi wala al xalbu illa annahu yataxallabu kon nañu xam ne kon nañ góorgóorlu baax a baax gën a gën a farlu ci jëf ndigal yi bàyyi tere yi su mba yàlla noonu defal kiimaan ci aw fanam mu yàgg fi lool wér lool àggale ay naalam yi yëpp ci bàkk seel xadim eh, yàlla na mbool dimbale mbool defal tawfiq xëyam na ci njub te saxal na ci te def nu dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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

full الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويدور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه ووضحهن للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بالتوبة إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wasbiru ala iqamati faraidihi allati faradaha alaykum da'akum biha ila hadratihi liyukrimakum وخيروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا وقام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل الله رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه السنوات التي tud'awna lahaa fahabuuhaa akbara min axawaatihaa wa ajallahaa li'anna maqaamahaa fil ibaadaat maqaamu ra'si fii a'daa'i zaat fafarrighuu lahaa al-quluuba mahalla nawaari rabb وطهر لها الثياب والأجساد تفوز بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان غفر الله لنا ولكم الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطيب الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهاطل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 وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية واعلموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارزة الواحد القهار بالعصيان باقتحام مناهيه أو أو باستخفاف بأوامره بالأوان أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم

لأخيه ما يحب لنفسه وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 allahu akbar allah allah akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum